xoolee bu baax euh, li dal Mali mooy euh, Mali c'est pas un pays à vocation d'être gouverner par des militaires en réalité mm-hmm. donc militaire dañuy defoon benn usurpation usurp euh, benn xamoon nuñ koy waxee ci français sax dañoo këfoon nguur gi rek à un certain moment irruption voilà merci mon grand c'est pour ça que je vous appelle mon grand donc dañuy def irruption ci seen politique bi jël nguur bi voilà te te normalement seen place du woon foofu léegi nag jël bañ ko jël dafa yàgg dañ ko jël ba pare nangootuñ ko ba mhm. donc c'est le régime militaire qui pose problème les militaires sont le problème au niveau du Mali c'est-à-dire dañoo war a tranche civile léegi nag li indi jiixi jaaxa bi xam nga bi ñu nommé. mais Siré dogguma la nga baal ma xam nga lan moo graaw ci histoire bi tey jii militaires yi. Mm-hmm. ñoom ñi ngi bëgg ruyewu ci li nga xamante ni moo di gouvernement bi pour mën a am ay place en train de sévir là-bas au Mali mooy surtout djihadisme. Absolument. pourquoi waruñu leen mën a. déporté à ce que ñu génn dem jàkkaarloog ña nga xamante ni ñoo ñooy ñooy jihadistes yi tout à fait d'ailleurs euh, ñenn ñi sax dañuy wax ni place militaire moom Euh, ca xare ba la. place militaire ca sécurité la place militaire ca défence la euh, maintenant soo ko xoolee ba ci biir mooy euh, Bandaw bu mu ñëwee président xam nga moom ancien militaire la woon. Mm-hmm. ancien général bu demoon à la retraite gars yi indi ko ci show bi noonu il était un peu disons favorable au régime militaire. mais dem na ba commencé nag indi ay coppi ko ci biir ci kii bi pour mën a defaat benn transition delloowaat affaire yi commencé samp affaire civile yi les coups d'état bi yooyu la militaire dañoo dem ba sentir ni waa ji ak seen guvernement bi bu ñu leen arrêté wul. dana ñun ñoo nar nekk le grand perdant c'est-à-dire dañuy retrouver delluwaat à la normalité la normalité c'est depuis du temps Modibo que euh, civil yi ñëw donc ñoom loolu mooy toile de fond yi malgré ko jox na leen ay postes yu bari ci militaire militaires yi. mais ñoom dañoo mel ni dañoo bëgg di euh, jëlaat affaire bi ci ñoom bandaw teg benn transition régime militaire. parce que kële sax moom statut hybride la am ancien militaire la mais nag retourné vie au civil euh, ki ka nekkal premier ministre diplomate la donc tendance bi globalement au niveau de gouvernement bi mooy ñu commencé def benn équilibre loolu mooy premier facteur deuxième facteur bi ñoom mbandaw dañu jàpp ni Mali pour mu mën a am stabilité il faut ñu dugal ci rebelle yi maanaam bon pas rebelle man je les appelle rebelle mais les euh, ñi nekk Touareg gi Touareg yi mm-hmm. cest faut ñu def ñu dem ci accord d'Alger accord d'Alger bi dafa xoon dañuy def inclusive même ñu doon jël gànnaay ak yooyu yëpp nañu tëggu Mali Mali boo xam ne Mali wu ñëpp la te xam ñëpp day am ouverture même ña doon jàmbaatloo sax ñu dugal leen ci waaw ñu ñu ñu toggaat affaire yi mm-hmm. mais affaire boobu nag am na ñoo xam ne ci biir Mali loolu notamment les militaires mhm. gisewuñ ko d'un bon oeil quoi yii yëpp loolu lay loolu mais parce que militaires yi xam ne ñoo defoon coup d'état bi 2019 mhm. euh, je pense mhm. ñoom ñoo defaat euh, putsch bi nga xam ne ñoom ñoo ñoo ko def cette fois-ci est am na fa aussi bon euh, xam naa damay tàmbalee sax fu Siré daanale parce que problème mu Mali véritablement mooy li nga xam ne def nañ ko ci formation gouvernement bu bees mi en réalité boo xoolee ci coup d'état bu njëkk bi du mois d'août li ko indi woon moo di ne ñi nga xam ne ñoo nekk ci force armée malienne bi jàppoon nañ ne ñoom ñooy les parents pauvres du système de gouvernance bu Mali parce que li ci xew mooy ñooñu mooy ñi nga xam ne tekkiwuñ dara les généraux ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, gundaat ndaat nekk ci Bamboula colonels yi sous-officiers yi officiers yi ñeneen ñi ñoom kenn considéré wu leen la preuve boo demee tey Mali ñoom ñi nga xam ne ñoom nañuy mën nañ leen tuddee sax la bas peuple ci armée bi ñoom boo xoolee amuñu sax ay fetal yu ñu yor non ay kalachnikov te ñenn ñoo ko ci yor loolu benn la deuxièmement ñeneen ñi xamala nañ yor ay matraque pour te pour te dire le mal vivre bi nga xam ne tey ñoom les forces euh, armées maliennes ñu ngi koy dund alors bu ñu defee formation de gouvernement bi on a pris on a retiré la veille on avait prévu trente six minutes ñu ñëw ca cëppaandaw ga on s'est retrouvé avec vingt quatre ministres mais ci biir vingt quatre ministres yi colonel yi nga xam ne dañ leen dugaloon ci biir gouvernement ba dañ leen a léegi nag loolu moo indi ay bruit de botte commencé foofu ca Kati parce que Kati fa la li nga xam ne coup d'état bi fa la tàmbali woon parce que jàppoon nañ ne am na ay généro yoo xam ne dañoo nekkoon ci Mali mais seen <clears throat> seen fortune xam nga ñaata nañ leen ko nañ leen doon wax ne ne loolu lañ am soixante dix milliards pour un général quand ci dëkk boo xam ne dëkk bu ndóol loolu kenn mënu ko comprendre. Mhm. loolu benn la beneen bi mooy li nga xam ne tey moom moo am mooy gis nga tant que réglé wuñu loolu noonu mu dine